juróom-ñetti waxtu jot na ba taftal ñeent fukki simili ak benn ci Touba Mbacké mu yemook euh, dibeer euh, fukki fan ak ñett ci weeru safar mbokku téléspectateur yu télévision Futurs média ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci ëttu Cheikhul Khadim xibaaru euh, màggal gi bokk na ca ponk yi ca gën a fës màggal gi xam ngeen ne juróomi fan doo nga ci des mu mel ni am na ay gox yoo xam ne ndox mi maanaam da leen a sonal muy mbënn mi ba tax na ñenn ci taalibe yi dëkk fii ci dëkk bi ñu ngi jënd ay moto pompe ak lu ni ci mën a am moom daañu ci ñëwaat ci biir xibaar yi bokk na ca lañ fas yéenee faram fàcce muy ndox mi xam ngeen ne su màggal jibsee léeg-léeg ndox da daan manqué ci kër yi jafe-jafe yooyu nag préfet bi ne daal mi ngi ciy dalal xel yi moom préfet bu Mbàkke ndax nguur gi euh, jël na ay dogal noonu itam euh, euh, ñu koy faral di defee saa su nekk buñ tollee fii Euh, waajtaay yi dañu koy tàmbali waaye itam ku ne xam ne ne ren ji accident yi dafa bari ba tax na jëwriñ bu ñu denk wàllu dem ak dikk ne jël nañ ci ay matukaay di ngeen dégg ci biir xibaar yi El Malick Ndiaye ganuk euh, xibaar yi di Omar Bun xataab Dieng maa ngi lay nuyu sëñ Omar. asalaamaaleykum soxna moom mooy directeur des travaux bu Touba ca kanam ci kanam incha allah ñu dalal ko ngeen ma ñëw ñu faramfàcce xibaaru màggal gi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo amati mbégte sant yàlla ginnaaw bi ñu ko waatee di ñaan borom bi mu may ñu màggalum jàmm xam ngeen ne ñu ngi fii ci Touba Mbacké gox bu ñu naan Daaru Khoudoss tu Cheikhul Khadim la ñuy la xibaar yi di jibee xibaar yooyu bokk na ca lañ fas yéene waxtaanee muy njiitu réew mi euh, di président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy xaar euh, ëllëg ci altine ji fii ci Touba ki ko fas yéene dalal euh, di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñu ne nag ziar boobu itam Euh, ñi ngi ko mi ngi koy amal rek laata ñuy dem ci màggal gi nga xam ne dañu koo jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi mu yemook euh, aljuma beneen ponk mbokk yi xam ngeen ne itam Euh, màggal gi juróomi fan doo nga ci des jamono ji bari na gox yu am ndox ci dëkk bu sell bi mbënn bi dalee na a ñenn ñi dem nañu ba jënd ay moto ngir jële fi ndox mi lu ci mën a am jafe-jafe yi ni jànkoonteel nee ñu terewul dañoo fas yéene màggal ànd ak euh, mbokki taalibe yi dalal gan ñi ba fara ñi nga Amadou Ba ci ay leeral bruit bi nu mel fan yi yëpp moom mooy riir ci biir kër yu bari nekk fii ci Touba bi le moyen am rek ngir mën a dindi ndox yi nga xam ne moo fees ci yenn ciy kër nekk fii ci dëkk bu sell bi. bi ngeen ñëwee li ngeen gis ci kër gi lool rek moo fi nekk waaye nag ñu ciy am mbégte lool ci wàccaay wi ndax sëriñ Touba jar na ko metti na nag ndax dangay defar dangay yendoo defar fanaane ko. su tawaatee mu nekkaat beneen problème. waaw ñii ñii ci sëkk bi ñii ñu ci tabax bi ñii ñu ngi si machine pompe yi di pompe ndox mi taa bi na xam nga ne Touba ndox mi bëri na fi yaa ngi gis kër gi yaa ngi gis sa bopp machine baa ngi noonu di tàkk waaw si loolu lañ nekk noonu di liggéey. ngir nag fexe ba gan yi ñëw am condition yu baax moo tax nag ku ci ne di wut ay xalaat fii ci dëkk bi sell bi ñeen ñi nee nañ ay tànt lañuy def ngir fexe ba gan yi mun cee nekk. ka may yégal ay birig dem si kaw pour waajtaay màggal gi rek waaw fii day seen moo tax ñu bëgg def am mbaar si kaw. kii yëpp kii fi ñu bëgg nañ ko si jàppale nag waaw. ngay am ndox fii. waaw fii yaa ngi dégg machine bi chaque jour day tàkk du fay wallaay. xaalis yu bëri ngeen ciy def. Ah, waaw pompe bees tàq lañ jënd am na bu ñu jëndoon daa yàqu daa fàtt beneen lañ dënd mbaar yi fi mu nekk nii booy xool moo ciy solution ndax baas yi biñ ko defee daaw taw bi ñëw dafa naaw ak weñ yéeg yooyu mën na dem bay gaañ nit ñi moo tax ren boo xoolee presque ay mbaar lañ programmé def ko ci kaw terrasse yi def ko tamit ci. ëtt beeg yooyu waaye nag xam naa yi ci kaw terrasse bi mooy xaw a tane tuuti ndax ëtt bi moom day fees del ak ndox. naam jafe-jafe yi bëri na ñu dëkkee fii ci Touba ñu ngi dalal xelu gan yi. te bëgguñu gan gu fi ñëw xuus ci ndox ndax sëñ bi moom mu ngi ci def kamtulaay kàttan mi ngi jënd machine teg ko ci kër gi saa yu tawee ba séwét ñoom xale góor yi ñoo koy wiide ca mbedd ma ñun jigéen ñi fas nañu taxaw jigi gan ñi dalal leen ah def bernde leen ba ku ñibbi daal da nga xam ne Touba nga ñoon juróomi fan rek des ci màggalu Touba bi askan wi ñu ngi yëngu di defar ak ràmbale seen yi kër yi ngir nag fexe ñi nga xam ne ñooy ñëw ci dëkk sell bi ngir am màggal ci jamonoy nawet bi ñu def ndoxum taw mi nekk ci gox yu fasantikoo ci biir dëkk bi ñu bëgg mu jóge fi ca jamono ndox mi askan wi di jëfandikoo ñu bëgg mu mat bu nu sukkandikoo ci préfet Mbacké loolee amul sikki sàkka la mu wax mooy nguur gi jël na ay matukaay jël na itam ay matukaay ci wàllu assainissement Khadim Anne mooy préfet bu Mbacké Amadou Ba ak Pape Fara ñu ngi ñoo ko setti woon ca makkaanam ñu teewlu ay kàddoom. waxe yow ni Touba am na lu toll ci ñeent fukki forage ak ñett ñeent fukki forage ak ñett yooyu nag. Euh, benn rek moo ci fonctionné lu muy forage FKB euh, bu Ndiouga Kébé nga xam ne forage boobu moom dafa yàqu dañ ko war a remplacer normalement mais ñeent fukki forage ak ñaar yi yëpp ñu ngi fonctionné état yamul foofu euh, ci ñeent fukki forage yooyu ak ñaar am na lu ci dolleeku parce que dañ ni kat mm, ndaje mu demee noonu amaana mën na am ay jafe-jafe moo tax lu toll ci téeméeri camion citerne ak juróom-ñaar fukk ak benn état mobilisé ko waa ah, ci wàllu assainissement euh, euh, Touba dafa nekk dëkk bu rëy di màgg chaque année euh, am na projet boo xam sax état mu ngi ko mettre na ko en œuvre au niveau de Touba ñu koy tuddee projet de drainage des eaux pluviales de Touba nga xam état def na ci lu toll ci ñaar fukki milliards ak ñett mais projet boobu rek doyul parce que état def ni en plus projet boobu nga xam permettre na ñu def ay bassin def également ay conduite dina am leneen loo xam dina ko ci yokk muy li nga xam moom la ñuy tuddee ay mesures conservatoires euh, mesure conservatoire nag mooy loo xam ne maanaam day fexe ba ndox mu nga xamante ni moom mooy taa ci dëkk bi ñu fexe ba nuñ koy génnee ba ñu am benn jafe-jafe dinaa ci joxe rek xañ na peut-être ñaar ba ñett exemple benn bi moom mooy euh, lu demee ni bassin bu Kër Ñang bassin bu Kër Ñang ku ne xam na ni foofu euh, deux mille huit cent mètres cubes heure moom mooy capacité de pompage am mais ci jamono yi toll na ci six mille mètres cubes de pompage loolu nag dafa nekk ay mot électropompe yoo xam ne installé nañ ko fa pour egg foofu. xam ngeen ne màggal gi bu jubsee euh, gox yi wër jumaay Touba àgg fa léeg-léeg du yomb ba tax na ay ndaw dañuy volontaire ñëw ci dëkk bi bokk na ci ndaw yu bàyyeekoo Medina ca Ndakaaru ñoom nag nee ñu duñ ko yemale ci Touba yeneen euh, dëkk yu sell yi nekk ci biir réew mi itam bu nu amee xew-xew yu diine xew-xew yu diine yu ni mel daañu ca dem Bamba Fall maire Medina la ñuy teewlu ak Pafara Ñing ak Amadou Ba. ay taalibe lañu ci vacances citoyennes di nettoyer Médina chaque jour def camp de vacances ak coup de vacances gratuite ak yeneen manifestation de vacances ñu mobiliser tey deux cent cinquante jeunes Médina pour ànd ak waa Touba bu ñu gisee fu ñu soxlaa fu taa wala fu ñu war a bale ñu ànd ak ñoom defar ko tu ngistal nag dañu di ay taalibe te fas yéene koo def fii bu gàmmu jotee dinañ ko def feneen bu laa ci catholique mbaa feneen dinañ ko def mais tey ñëw nañu ci bu buñ ci paree fa lañ jëm jaar ko sëñ Abdou Karim mais fii ba ba ñuy dem lépp lu ñu war a bale ak lépp loo xam ni dafa taa koo def rek dinañ ko def incha allah ci jamonoy nawet bi Touba soxla woon na loolu te yaakaar naa ne maa ngi ñaan maire yëpp tamit képp koo xam ni bu Touba soxlaatee mbaa Tiwaawan mbaa fenn bu jege see bu ñu bàyyi ba bis bi nañu ñëw may waa dëkk boobu doole ndax ñooy dellu si waat xam ngeen ni itam jamono ji mbooloo mu takk ñooy bàyyeekoo ci biir réew mi ak bitim réew wutal si dëkk bii di Touba jafe anam yi ñuy euh, ñëwee nag ci dëkk bi léeg-léeg mu am i jafe-jafe ndax xam ngeen ne accident yi fi mu ne nii dafa bari ñetti weer yu mujj yi ñu ngi naan lu ëpp téeméer yi bakkan des na ci ba tax na jëriñ bi ñu dénk wàllu dem ak dikk di El Malick Ndiaye ni dinañ ci jëli dogal dawalkat yi ak tukkikat yi itam am na luñ ci wax pàccun lañu ñuy àndal ci gëstu bi garu ceeru Dakar fii ci Touba chauffeur yi ñu ngi waajal bu baax màggal gi accident yu bari nag tax na ba ministre bi yor wàllu dem bi ak dikk bi jël na yeneen i ndogal lu ci mel ni chauffeur si di noppalu boo defee naka sudul noonu ñu jël sa permis de conduire wala teg la ay daan yu metti loolu nag tax na chauffeur yi joxe nañ ci seen xalaat. loolu moom kenn du ci ànd ndax tey jii li ma la wax léegi sama biir wax nee naa la chauffeur bëggut laal gunóor bi te ka nekk ci kaw tali bi kon nag bay dóor oto ci kaw oto te moom mooma bakkanam xamu dana ca des wala du ca des ndax accident yi am yëpp yi safoor si da ngay dégg ñu ne safoor bi ñàkk na bakkanam wala ñaari safoor ñàkk nañ seen bakkan kenn du ñaan yàlla di sa bopp te xam ne maanaam lii nañ jàpp ne balaa bu wàcc la te ñaan yàlla ci yàlla mu jeexal kook jàmm moo ëpp importance ndaxte fi mu toll nii moom safoor dafa weexu donc lool ndax lu ñu wax ne safoor te safoor liy dund ci gannaawam kenn xamul nu mu toll. ñoom nag chauffeur yi nee ñu balaa ngaa wax lu jëm ci wàllu sanction wala leneen nag li ñu war a njëkk a xool mooy li waral accident yi bari lu ñu wax nag du lenn lu dul ay yoon yu xat. accident yi nag moom wax dëgg xam naa ndogalu yàlla am na mais tëli am na ci parce que 1956 ba léegi euh, man 58 laa judd mais tëli épée kii lërtër bi mu nekk ñun fi lañ ko fekkoon te booba li fiy daw ci oto bu fekkee junniy oto la woon léegi million nga oto nga fiy daw tëli bi dafa sursaas waaw te boo seetee accident yi li ci ëpp yëpp yu métti yi boog yi ñuy wax ay 6 morts 10 morts yi ngay dégg ñaari oto yu daje la. te boo dabee oto même boo daboon oto fi ne tey welo ke waxuma la oto mais welo di ñëw doo ko mën a doublé boo dabee welo oto di ñëw doo ko kon da jàpp naa ne daal suñu yokk suñu yokkaloon télé bi ba noppi defar ko ba mu baax mu nekk euh, maanaam jële fi euh, circulation double sens moo war a jeex Sénégal amatu télé yu bari bu ñu ne ko defaloon sens unique jàpp naa ne accident yi mën naa wàññi jamono ji nag nemmeeku wuñu benn yokkute ci paas yi waaye nag chauffeur si ñu ngi sàkku ci ministre bi mu may leen nag ñu yokku tuuti ndax ñu mën a am bénéfice. saa bi màggal ba mu tàmbalee ba léegi bari dem ba léegi 3000 la ñuy yebe 3000 yabagun sax 4000 te 3000 boo ko yebee ñaari gasoil ngi sol fay sol gasoil boo sore boo ñëwee man démb bu ma soree gasoil ba ci Serigne Touba 40000 laa dese 40000 loolu nu mu baaxee 40000 francs soo demee jox booy añ ak reer doo du tàmbali gasoil xanaa. yokk ministre bi nekk mu bàyyi ñu yokk paas yi ñu yëpp li ñu daan yëppee bàyyi daw guddi bi ba événement bi jàll. màggal gu àndu ak benn accident loolu nag mooy yéene ñi nga xam ni ñooy jaar ci tali bi lundi bi sax am na ab séminaire bu jëm ci wàllu états généraux de transport public boo xam ne nag dinañu jéem a wut ay solution pour xeex li nga xam ni mooy accident yu bari ci tali bi. sunu gan muy Omar Boun Khattab Dieng di sama doomu baay directeur des travaux euh, Touba ca kanam euh, sëñ Omar. Euh, ñu dellu siwaat ci nawet bi euh, ku ne xam na ne euh, Touba at yu mujj yi ndox mi wala boog mbënn mi dafa dafa nekk réalité parce que ñenn ci askan wi dañ koy dund ñu bëggoon xam ana yan gox fi mu ne nii lu mbënn mi gën a sonal fii ci Touba Mbacké à cinq jours du Grand Magal ginnaaw bu ñu leen nuyoo sant suñu sang Cheikh Ahmadou Khadim. Mhm. Euh, ñu ngi leen di sant si invité bi ngeen xam ne invité ngeen ñu ko. jërëjëf comme ni ngeen ko remarqué euh, Touba nag depuis quatre années yii nii. Mhm. bi nga xam ne ndox mi taw bi dafa gën a bëri. Mhm. mbënd mbënd yi mbënd xaw na fi yokk waaw euh, loolu nag li si gën a ràññee mooy zone yi nga xam ni. yenn ñi amuñu assainissement ak ñi nga xam ne as am nañu assainissement mais seen niveau kër yi. mu dëkkee sa ay point bas ba nga xam ne réseau bi di ko mën a yóbbu la plupart si ñaari yooyu dañ koy plus que remarqué mhm. d'accord gis nañu Touba ci kanam da ci def ay jéego li ma bëggoon xam ana fan ngeen ci liggéey bi voilà actuellement Touba sa kanam def na si ay jéego yu am solo parce que depuis 2020 euh, mhm. bi mbënd mi commencé si lañ créé benn euh, opération defar yoon yi mhm. mu bokk si euh, mu bokk si euh, commission réalisation. Mhm. Euh, ñu def si lu tolloog six mille euh, sept cent mètres linéaires de réseau d' assainissement. Mhm. diggante boobu ak léegi. Mhm. Euh, ginnaaw loolu aussi am na zone yoo xam ne si mbënd bi dina tax ba dem bëgg dikk bi day jafe ñu def ay rajo submersible yoo xam ne si mhm. même bu amul euh, assainissement oto yi ngeen mhm. mën dem di dékku mhm. te bu njëkkoon oto yi daawuñ ko mën d'accord ñu gis euh, Cheikh Tidiane Dièye jëwriñ bu ñu denk wàllum assainissement mu wax ci bassin bi nekk ca Ngelamu ak Kër Ñang ak raccordement yi ñu ci def ndax jàpp nga ne loolu mën naa indi solution en attendant waaw dina indi solution sur de Touba Touba boo ko xoolee. Mhm. c'est cent quatre vingt seize kilomètres carré. Mhm. Euh, li ñu fi assainir matul mhm. donc le taux d' assainissement à Touba est presque à huit pour cent. donc loolu su ko indee tamit daanaka du sax mat. xaaju dëkk bi pour mais nag dina régler la une partie de la corniche. donc à peu près corniche bi daal. Euh, ñu ngi koy xaar nag am na nañu ambition liggéey. donc mhm. euh, am na sumb yoo xam ne si. am nañu ko yéene ñun tamit de notre côté. Mhm. pour jàppale état bi toujours quoi. très bien ñu wax ci wàllum assainissement nga ko. Mhm. Euh, li ñu assainir ci Touba bëriwul. daanaka matul 10 pour cent. ñu gis ne tuubaa ci boppam bu ñu sukkandikoo ci recensement yu mujj at yu mujj yëpp c'est la deuxième ville du Sénégal. ci côté euh, euh, démographie euh, naka nag lañ mën a def ba régler l'assainissement à Touba parce que li ñuy wax Touba bu njëkk ga ak Touba gi wute na lool Touba dëkk la boo xam ne ni muy màggee jéggi na daayo misaal boo ñëwee ci benn gox at mi soo ñëwaatee soo moytuwul da réer naka la ñuy def ba régler le problème la l'assainissement parce que jéggi na quand même seen i seen i seen i comme ni nga ko waxee rek xam nga Touba croissance bi dafa démographique bi dafa jiitu. Mhm. Euh, maanaam euh, croissance euh, infrastructure yi. Mhm. voilà donc nit ñi ni ñuy dëkkee dafa raw. li nga mhm. xam ne noonu la état bi di tabaxee. te comme état bi tamit aussi dafay am programme boo xam ne si daf koy sëkk Sénégal bi yëpp. xëy na peut-être lim man lay def mais nag Touba fi mu nekk toll na en tant que comme deuxième ville du Sénégal. war na am benn considération boo xam ne si bu ëpp boo xam ne ni ni ko jàppee fi mu nekk. de ce fait. ñun à notre niveau ñu ngi siy xalaat. Mhm. Euh, di ko échanger tamit ak euh, waa ONAS yi nga xam ne ñoo fi nekk. Mhm. mais dans un premier lieu li nga xam ne mooy périmètre sacré bi. Mhm. mooy euh, biir corniche bi. avant tout essayer de de créer créer benn collecteur. boo xam ne si wërngël bi wër corniche bi. dafay doon canal boo xam ne si comme canal Gueule Tapée bi. boo xam ne lépp loo xam ne si ay point bala yu nekk si biir dëkk bi. daf koy ramasser. indi ko si wërngal boobu bu ko defee yi nga xam ne tamit soriwuñ biir biti corniche bi mhm. ñu mën leen a xëcc ñu ñëw si canal boobu mhm. bu ko defee ñeent xibla yi nga xam ne ñu defaree bassin mhm. exutoire bi nekk kër kàbbu waaw ñu defar si yeneen xibla yëpp dafay kii yoo xam ne si tamit dañu mën a drainer ndox bi mu dem si zone yooyu infrastructure aussi xaw na fi tumuranke sooy dem ci yenn gox yi ñu ci mel ne Soura biir Daaru Xuddoos Gédé Kër Ñang da ngay gis ne bu weesoo teggi bi ngay teggi yi na yoo xam ne euh, dafa mel ne jàll bi day métti day métti mhm. ci sareet yi métti ci daamar yi réhabilitation route yi aussi ponk la boo xam ne euh, waree su koo bàyyi gannaaw voilà comme assainissement bi ni mu mel mhm. même pas 10 pour cent mhm. u dëkk bi tali noonu la mel yeneen infrastructure aussi la plupart noonu la mel donc Touba nag vraiment dafa jot comme ni ñu ko waxee nag euh, en tant que deuxième ville du Sénégal. Mhm. mu gën a am considération pour euh, infrastructure yi. Mhm. donte sax mënul dab ñu dëkk bi màggee. Mhm. mais ñu jéem si def ay jéego yoo am solo yoo xam ne si. jafe-jafe yi nga xam ne population bi ñu ngi koy dund. ñu mën see jóge. jërëjëf muy lu jëm ci tam wàllu wér gu yaram gis nañ Touba ci kanam euh, ci infrastructure yooyu ñuy jàppale ci ouverture poste de santé malade yi. mais fi dëkk bi toll. gis nañu hôpital bu mujj biñ fi daloo. hôpital jéemul hôpitaux yi bëri na am na ay jéego yu yu yu doy waar yu ñu fi war a defaat. ndax hmm. boo leen gisee ak population bi nañu toll. voilà donc euh, comme niñ ko euh, programme santé bi. Euh, hmm. commission santé yore. ñun ñu yor réalisation commission réalisation di leen tabaxal poste de santé yi actuellement ñu ngi si. fukki poste de santé. yoo xam ne si ñeenti pare na depuis quatre ans mu ngi fonctionné. yeneen ñaar Touba Ndiarème ak Ndaam ñu ngi fonctionné depuis un an. Mhm. ak ñeent yoo xam ne si ils sont en cours de réalisation. ñu mhm. fukk poste de santé yoo xam ne si. Mhm. du point de vue infrastructure même. niveau centre de santé lañ yor. voilà bañ nañ ba ñaari mujjee tabax sax. centre de santé lañ def. donc loolu aussi dañ si ñëw jàppale si état bi rek. parce que xam nañu état mënul lépp ñun ñëpp ay sénégalais la. donc taalibe yi bëgg guñ bëgg seen dëkk fexe ba dëkk Euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lan ngeen di xaar lan mooy seen attente bu weesoo sax nag euh, Touba ca kanam bi nga bokk mais dëkk ngeen dëkk Touba lan la ñuy xaar ci président bi. waaw kon ni ma la ko junjee léegi rek. Mhm. maanaam infrastructure dafa dafa nekk en retard. trop mhm. trop mhm. par rapport ñu dëkk bi màggee. donc yoon la def benn programme boo xam ne si. day moderniser Touba. voilà moo xam si wàllu. dem beeg dikk bi la. Mhm. moo xam si wàllu santé la. moo xam si wàllu mhm. environnement la. Mhm. Euh, ak bépp wàll boo xam ne si day nekk ay euh, besoins vitaux population bi. ak. Euh, environnement wu dëkk bi. Euh, ñu ngi si woo tamit. Euh, mmh. comme ni ko waxee njiitu réew mi. Mmh. mu xam ne fii kat si Sénégal la bokk. Mmh. te nag euh, bu demee ba population bi si boppam. di jéemal seen bopp. vraiment état war na li mën a gàttandu daal. jërëjëf voilà te Touba sa kanam. particularité bi mu am mooy. diversité membre yi. nga xam ni maanaam fép foo nekk si Touba am na ko xam si mu ngi si Touba sa kanam. de notre côté aussi diversité. Euh, couche sociale bi. Mhm. nga xam ne couche professionnelle bi nga xam ne. képp ko kii métier boo gis rek mhm. soo demee subaa da nga fa maamut boo xam ne ko loolu waral ñu si dëkk bi mhm. maîtrise boobu ñu si dëkk bi nag mhm. moo tax euh, mooy euh, structure bi nga xam ne c'est mieux très adapté pour ànd ak moom liggéey dëkk bi jërëjëf jërëjëf euh, Omar bu baax di la gërëm ci kanam tuuti ak soxna naata ci français lay doon ñu santaat leen suñu mbokku téléspectateurs yi ñu àndaloon lii mooy suñu numéro bu njëkk ci xibaaru màggal gi ñuy ñaan borom bi mu bañ a nekk suñu teew bu mujj ci dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan yàlla nañu àggale eh, saa yi ñuy tàmbali nag eh, màggalu Touba ak waajtaay suñu xel dem ci eh, Fatou ki ne dem gën a si daaw daanaka mi ngi woon ci bësëm yu mujj ci àddina mu nekkoon bi Serigne Touba yoon la suñu tàmbalee fii ñu lay sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko njëggal di ñaanal bépp way dawlu waaye itam di sant ak a gërëm suñu ay téléspectateurs soxna Naata mbay noppi na ci xibaar yi ci français lay doon yaa ngeen jëf desandi leen ak suñu ay programme ñu fanaan jàmm. est une ville religieuse du Sénégal, située environ à 194 km de l'est de la capitale Dakar, dans la région de Diourbel, département de Mbacké, arrondissement de Ndam. Elle en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba, de la confrérie la ville sainte